ma nekk si di baab di baab man ak sama benn copine di wax ba ñu bàyyi ma ma participer après si laa gagné élection régionale yi ñëw compétition nationale avec tous les quatorze euh, régions. ah ok d'accord mais mais mais mais euh, rëccuwuloo. non aw ma benn regret rëccu ma franchement. xam nga pourquoi ma laajtee la noonu rëccuwuloo. parce que uh-huh. euh, pour man. nit ku ne da am rêve. Uh-huh. te rêve yi dañuy réaliser wu. Mhm. te yow sa bos dafa réaliser wu. Mhm. Euh, est-ce que amuloo impression que da nga nekk xale bu am 21 ans. Mhm. am rêve réaliser ko. am benn parti ci réew mi. yoo xam ne sa rêve boobu lañ la bëgg a récupérer wala ñu koy laam-laame. Euh, loolu mënul ñàkk mën naa ne sama rêve réalisé wu na aw ma dara lu ma ci regretté parce que dama siy dem à fond damay dem ba jeex léegi loolu moom mënul ñàkk euh, si dëkk bi. Mhm. mais nan nga ko ak accueillir parce que bi nga bi nga gagné Miss Sénégal. Mhm. Euh, coow li moo gën a bëri. dëgg la. moo gën a rëy sax événement bi. Mhm. fait événement bi mu jeexee c'est la coow li gën a rëy. léegi euh, yow bi ngay décider ne da ngay def Miss Sénégal. da xool sa bopp ci seetu nga ne man yaakaar naa ni je suis assez belle pour pour pour pour être la plus belle du du Sénégal. ah waaw. naa xool naa sama bopp nee naa man rafet naa mën naa présenter wu Miss Sénégal parce que y avait des critères mhm. y avait la taille euh, démarche mhm. ak euh, couleur de la peau et tout ah j'ai répondu à tous les critères euh, raison pour laquelle ma ni mën naa dem présenté wu Miss Sénégal waaw léegi non léegi par exemple bu ñu jëlee bu ñu jëlee couleur de la peau mhm. maanaam sa der nu mel xam nga mën nga xees comme mën nga ñuul. mooy que doo xeesal. loolu doo xeesal taille naturelle. Mhm. waaw léegi taille bi il fallait que mu ne nga nekk nit bu ñool. Mhm. léegi am naa beneen question bu ma lay laaj. Mhm. et si si kii bi ci euh, ci poids bi wala en tout cas ci corpulence bi est-ce que est-ce que dañ leen wax que unilatéralement il faut que ngeen ngeen ngeen sew njool. waa euh, euh, njoolaay bi moom mënu see ñàkk foog nga am taille minimum euh, un mètre soixante douze poids bi mën nga nekk si diggante bi mën nga bañ a sew torop mën nga bañ a am yaram torop mais nga fiin daal. nga fiin ah. Mhm. nga mhm. mais maintenant gars yi nee nañu nee nañu daal <laughs> yow li nga bon pas gars yi mais ñu bëri. ñu bëri pour uh-huh. dire vrai. Uh-huh. ñu bëri nee nañu. mérité wuloo sacre bi. waaw maa ngi dégg loolu ñu naan miis bi dafa ñaaw dugg na fi génn na fi mais nekk Miss Sénégal élire nañ ma Miss Sénégal ne veut pas dire que man maa dàq Sénégal damaa répondre ci critères yi ñu laajte woon looloo tax ñu élire ma mais nekkul man maa fi dàq damaa ñaaw loolu mënul ñàkk on est au Sénégal loolu mënu si ñàkk. ñii benn way boo doon way sànq bi si wayal ma ko ma dégg gars ñaaw ñëw na ñaxam wala ñaaw. ah ko way de yow bi ko commencé sànq kat wayal ko gars yi ju dégg nga ne lan ah ñaaw yegg na ñaaw ñëw na. waaw ku doon laajte ñaaw ñaaw ngi nii ñaaw ñëw na ñaaw yegg si na. mais man mais mais honnêtement ah. <laughs> trouve euh, macha allah mm-hmm. parce que damay wax euh, dama ci profité rek ci kii bi. Uh-huh. wax en tout cas man sama sama avis personnel. et mm-hmm. su may wax sama avis personnel euh, man la engagé mais man. ci ci damay critiquer sama bopp. Mm-hmm. avant may critiquer kii. avant xam nga yeneen nit yi xam nga ñun miis. Euh, lu bëri loo xam ne lu ñu jéggaane la peut-être indi ko fi. Mhm. ci yeneen dëkk lay amee. te réalité yi am Sénégal du réalité yooyu moo am Europe wala moo am États-Unis mhm. ñoom bu ñuy jël seen i miis dafay critères yi dafay dafay dafay nekk critères yoo xam ne bokkul normalement warul bokk ak yu ñu war am mhm. parce que dama naan nit bi ci réew mi nga nekk. miss yi ñu fay tànn. dafa war a répondre euh, ci li nga xam ne ñun noonu la ñuy gisee jigéen wala noonu la ñuy gisee nit. en général parce que boo nee nit ku ñuul. Mhm. nit ku ñuul maanaam lii firndeel nit ku ñuul mooy bakkan bu rëy <laughs> non ak tuñ ñu tuñ ñu ubbee loolu moom mooy normalement critères yooyu dafa war a bokk ci li nga xam ne moom est-ce que sax bu ñu doon wax Miss Sénégal war ñu seet ñi nga xam ne seen bakkan yi ñoo gën a nganda wala seen tuñ parce que ñooñu ñooy les vrais noirs. Uh-huh. nit ku ñuul moom laay wax nii. dañu dañu dañu dañu euh, dugal suñu xel loo xam ne. Mm-hmm. peut-être ñun. Euh, critères yi nga xam ne moom la européens yi wala nasaraan yi di di xool ci jigéen. Mm-hmm. ñun moom la ñuy xool peut-être léegi. Mm-hmm. ba muy muy ci couleur de la po man mm-hmm. xam nga ak sama moroom ñun ñëpp ah. que dëpp man damay wax que ni depuis très longtemps bu ñuy wax même bu ñuy wax waxu xeesal wala yooyu damay wax que ni euh, góor yi ñoo ci am part de responsabilité bu rëy ñun ñëpp nag. parce que euh, depuis suñu maam yi dañu dañu am lu ñu dafa mel ni. mooy ëpp chance ku ñuul. dama lay jox benn exemple. Mhm. des fois nga gis benn benn comme yow nii nga mel nii. ñu jël euh, benn nit bu am même visage même corpulence même yëpp. Mhm. mooy mun mais mu nekk nit bu xees yow nga nekk nit bu ñuul. boo leen demee taxaw ci euh, fukki góor. Mhm. juróom-ñeent yëpp. ku xees ki la ñuy xool uh-huh. parce que pour pourtant yéen bokk même visage parce que moo lay wan ni si suñu si suñu xel yi dañ ci peut-être que dañ loolu dañ ko judduwaale ba ba tàmm euh, favoriser peut-être que des fois ñi nga xam ne ñoom ñooy gën a ñooy ñooy gën a xees uh-huh. muy ci góor muy ci jigéen uh-huh. mais léegi est-ce que yow aussi xooloo sa bopp ne man je suis une femme euh, sahélienne parce que ñun fii Sahel la c'est-à-dire que normalement dañoo war a dañoo war a wow <laughs> war noo am duñu ay nitu yaram xam nga donc loolu yëpp dama gis que ni yow kii nga ko daal boole nga ko te mm-hmm. terewul bi mu bi mu génnee wax fa dëgg yàlla rarement laa gis lu lu lu lu positif mais bu ma jàkkaarloog yow moi je une belle femme mm-hmm. et euh, loolu il faut que aussi nit ñi nit ñi ci tenir dama xamul lan la fi nit ñi gis balay des fois na yoo xam ne ça je trouve ça mm-hmm. mooy jël benn photo ku góor jël la boole la moom c'est c'est pour man loolu c'est méchant te en tant que ay compatriote waruñu mën a di def di descendre surtout jigéen mm-hmm. suñu ay nit yoo xam ne dem nañu am benn rêve war ko réaliser gagné Miss Sénégal. Mm-hmm. légitimement yow yaay Miss Sénégal. te loolu mm-hmm. gars yi dañ ko war a dañ ko war a nangu. nangu waaw léegi euh, yow lan mooy sa ambition ci ci ci lii boo jogee ci lii lan nga bëgg mu jural la. ah bëgg naa mu ubbil ma ay porte yu bëri parce que am naa ay voyage yu ma war a def. bu ma amee sama bac incha allah concentré wu ci. Euh, man naa ni sax mën naa bañ a yegg si bag bi mais ma commencé exercer samay projet yi ma am ak yooyu noonu. mais mais projet yi Miss Sénégal mooy tax moo la koy jox wala parce que pour man njàng mi. Mhm. dañ ko bu ma la doon en tant que mag sa mag. Mhm. Ah, tonton sax lay wax. tonton waaw war naa la mun a conseiller. pour man njàng bi. dafa war a nekk loo xam ne da nga ko ko war a continuer. pourquoi mm-hmm. ma wax ko. Mm-hmm. parce que quand même ci oto bi lay xewee. Mm-hmm. gis naa aussi ñu bëri ne euh, ni ngay exprimer woo c'est-à-dire moom toj na dëkk. Ah. <laughs> gaa yi ñu ne gaa yi ñu ne émuse bi fan la jógee xam nga dama lay wax rek li nit yi di wax. Uh-huh. parce que comme ci lay xewee. gaa yi ne woy ah mi ngi nii waaye je suis très émuse nan la ko mën a waxee effectivement quand même euh, vingt et un lan lan ngay wax. ci loolu boo defee boo ju lan nga lan nga ci wax lan nga xam nga faute kenn mënu ko bañ parce que français nàmpuñu ko. Mhm. dañu judd di ko jàng ak euh, ni ma doon jooyee noonu ñu mhm. profité ñëw journaliste yi ñëpp tiimale ma micro ma juum bi may wax sax bàyyiwuma ci xel mhm. après laa gis vidéo yettu ñuy euh, de wax yi kenn xamul daal mooy loolu mooy loolu mais mais dafa mel ni yow da ko jëlee kii da ko jëlee philosophie. non waa surtout ça parce que critique yi man dama ni si laa war a basé wu pour rectifier wu. pour euh, forger ma personnalité sama personnalité. Mhm. voilà quoi. exactement dafa am solo li dafa am solo critique ci mën a liñ ci mën a jàng. Mhm. yow yow léegi lan moo doon sa relation ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo doon participer ñaata ngeen woon. Euh, on était quatorze. quatorze régions yow. Mhm. lan moo doon sa ay ay relation est-ce que am nga ci ay miss yoo xam ne. yéen a gënoon nekk. ay xarit biir compétition ñun ñëpp ñun ñëpp a nekkoon ay xarit ah, ay comme dañ nekkoon comme ay sœur premier jour bi ñu ñëwee moom xam nga duñu xamante mais bi ñu bokkee bi ñu yóbboo suñu chambre après si suba si lañ miinante ñun ñëpp comme ko xamante ay at. ñaata mm. temps ngeen toog ensemble. Euh, def nañ fa parce que lundi lañ ñëw def nañ fa une semaine presque. mais léegi parce que est parce que est-ce que est-ce que euh, par exemple li ngeen li ngeen li ngeen compétition yi ngeen def Fatick yi nga def fati mhm. yooyu. c'est des compétitions yoo xam ne du du du comité bi moom moo ko def. waaw wala waaw comité bi la parce que comité Miss Sénégal dañ doon tànn ay miss ci région yi. après doo ko def. après doo a def euh, kii final bi. bu bu national. Mm-hmm, national léegi léegi boo jógee boo jógee fii lan lan la lan nga gañe yow. Euh, am naa ay voyage euh, ay bourse d'études am naa lépp comme li miss di am ah. comme daaw am naa xaalis waaw. bu bëri sax <laughs> loolu moom mënuma ko wax fii nii. gañe nga am naa xaalis oto am naa oto. non <laughs> ah, wax nii na leer de. am naa daal am naa ay gañe naa lu bëri daal. Mhm. gañe nga lu bëri. Mhm. Ah, yaa ko wax de. yaa léegi lan lan nga lan nga lan nga lan nga war a wax lan nga mën a wax sénégalais yi par exemple xale yu jigéen yi nga xam ne parce que Miss. Mhm. non seulement du rafetaay bi mais da ngay représenter aussi une jeunesse. bu surtout bu jigéen ñi lan ngay wax sa sa sa. moroom yi nga xam ni ñoo nekk Sénégal. maa ngi leen di wax parce que nekk moom yow ambassadrice wu Sénégal. <laughs>